mbokk yi bu ngeen bëggee ay xibaar yu wér te wóor visité leen suñu site internet asalaami point net wala ngeen visité suñu chaîne YouTube asalaami TV mën ngeen ci abonné sax su ngeen bësee ci bouton bu xonq bi bu leen fàttewaale bësaale cloche bi ngir bépp xibaar boo xam ne dugal nañ ko ngeen mën di ko am ci saase moo xam ay reportage la ay émission ay documentaire yu am solo lépp rek ngir jox leen ay xibaar yu wér te wóor ñoo ngi ci réseaux sociaux yëpp moo xam Facebook la Instagram ba ci Twitter fu ngeen ci dem rek daa ngeen fa fekk xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di jox muy bàyyeekoo ci Assalaamy ak Assalaamy TV jox leen ay xibaar yu wér te wóor rek mooy suñu yitte.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 jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmbu jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmbu jërëjëfati Serigne Cheikh Fall Jëmbu Serigne Jëmbu yàlla na fi yàggati weer ci barke Maam Cheikh Ibrahima Fall mbokki murid yi mbokki taalibe yi rawatina mbokki daara ay Cheikh Ibrahima ñu ngi leen di siyaare baax tey jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaama yàgg fi loolu te wér ak ñëpp suñu Tuubaa gépp di ci teg Serigne Cheikh Fall Jëmbu mu yàgg fi lool te wér ak njabootu Cheikh Fall yëpp di nuyu daal ay Cheikh Fall yëpp yëpp ma nuyoo bi ak Cheikh bi di ko ci loxol soxna Jaabatu Siise ma it gën ko ci mboolem ko ne ci jotaay bu yëpp euh, may réew yi mm, suñ Mor Ndiaye eh, ak suñu Abdoulaye Ndiaye ak mboolem ko nekk bitim réew soxna ñaaña soxna may mën ñëpp waa Touba suñ euh, Modou Ba nekk fii ci Touba nuyu bu baax Euh, euh, waa Sénégal ji ci itam sama baay baay ma kii sax ci njub yàlla na maam Cheikh Fall sax ci moom sax ci ñoom sax ci moo nekkoon ci daara ji di siyaare bu baax sëñ Ababacar Korea porte-parole daal di Cheikh Fall maa ngi koy siyaar bu baax ko ñaanal tawfeex jàmm sama Cheikh waaw tey mel na ñu ngi fii ci kër Sidna Omar mel ni kàddu kii di wax ak yéen di jë di jënd daal di Cheikh ñu ko xam Sidna Omar général euh, moo ñu nekk ci këram tey ci ndigalu Serigne Cheikh Fall jëmb. ma ne liggéey boobu suñu sefal jëmm joxoon daal Aliou Cheikh Fall ñëpp xam nañ ne moo nekkoon eh, miir kër ga mbaarum ndog ya euh, kees soxna ya moo moom dañ toll ci kuule ko nag buñ toll ci kuule ko tey jii nag euh, kees soxna yi ndax ñëpp xam nañ ne ma euh, le 16 février kuule nañ mu njëkk mi le 16 mars bi ñu ku ñu kuulewaat mbaar mi ci topp te ci xajuma ji tamit le 19. ñu war a kuule mbaarum euh, kees soxna yi yàlla dogal nag euh, xéewal ya fa sëriñ bi bëgg murid dafay teew xéwloo ko mu joxoon ko àll si Arafaal tey jii nag ci lañ nekk nii di ko togg fii ci kër ci kër gi. Euh, di toll ci fukki mbaran ak ñeent war koo yóbbul sëriñ bi loolu nag loolu nag sëriñ bi tawféexu sëriñ bi ndax sëriñ bi moom kenn ku mu bëgg a dimbali ku ne dana la dimbali. ku mu bëgg a dimbali dimbali la ci ndimbalam rek ak kàttanam ak dooleem ci ñu dimbalee ba ci ñox ñu liggéey boobu kon dañuy sant bu baax di di nag képp koo xam ni dugal nga ci sa haddiyee Cheikh Rafal yokk la ba nga yëg ko di ñaan ci darajee Cheikh Rafal képp koo xam ni teew nga ci liggéey bi Cheikh Rafal yokk la ba nga yëg ko ñu ngi ñaan si Sefa jëm mu yàgg fa tuwér jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum illallah faal la ilaha illallah faal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 Ibra Faal la la la yaa la la la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala sëriñ bi moo ngi leen di beral aw cant di leen beral aw ngërëm di leen jaajëfal bu baax a baax di wax ni jaajëf jaajëfati baatu jaajëfati nag ki ko moom mooy ki jëfoon démb ak barkaati démb moo yéen ñii la ma ci yewee ku mujj gi rek laay waxaat Baye Fall moom moo doxee ni jotaay ju ci nekk ka mooy doon borom jotaay wi kon tey jii sëriñ bi ci boppam sëñ Cheikh Jëmb doomam ji moo fi ne tey jii di sëriñ Jili Fall ak mboolem ay rakkam kon ñaan geeg lépp ci loxoy sëriñ Jili la nekk. da nag sëriñ bi jottali nañu ay kàddu ngir ñu jotal ko mbokki taalibe yi teew fii tey nag li ñu fi tax mooy kulaas bu mujj bi sëriñ bi ci boppam moo nu waxloo kàddu yi ñu bokkoo jotal ci yéen li ci njëkk nag mooy sëriñ mbay jëwrin mi nga xamee ni mooy jëwrinu maçon yëpp mboolem bi sëñ bi toggee ci lalu seerafaal geeg tey mboolem liggéey yi fi jaaragum moo jiite liggéey bi rawatina liggéeyu kër gi taxawaayam rafet na lool mboog mboolem ñi nga xamee ne ànd na ko ñoom jàpp ci liggéey bi ba mu yegg fi mu yegg buñ ne mbay jëwriñ ak xibam wax na ñëpp kon ñëpp a ci biir kon jaa ngeen jëf jaa ngeen jëfati ñeneen ñi ci nekk moytu tànk yi muy góor ñi muy jigéen ñi muy mag ñi muy ndaw ñi ñëpp jàpp nañ ci liggéey bi ñu nekk ci biir kër gi ñu nekk ci koñ bi ak mbooloo mi jógee Touba fépp ak ci biir Mbàkke waaye ndokk ba yàlla dul jaawale jëf yi benn jëf du jaawaloo ak morom ja rawatina boroom kër gi ñuy liggéeyal nag liggéey bi boo ko xoolee daanak ay xale ñoo ci ëpp waaye ku xam sëñ ceex jëmb xam nañ ko xale yi yàgg na lool moktu tànk yi am na ay jamono ca gannaaw ñoom Basiiru Ñas ak tout tànk yi dañ daan toog ci buntu kër gi fii di bàkkaay pot naan naaru soxna ummi faal yàlla na ngay maam boobu tey ji ëpp na fanweer at wala ca lay toll wala mu jege ko mu dégg tëgg yi daal di génn ci biti dox di ñëw ba toll ak ñoom daal di leen wax ni dana yàgg dana neex di ngeen ko fekkee te bu ma ci yeggee maag yéen a koy ànd loolu mooy xale yi am na baat bu mu ci teg kat dañuy seen saram ndey dana yàgg dana neex te di ko fekkee te maag a koy def. mooy yéen kon kii nga xamee ni moom la ñuy liggéeyal bi mu fi nekkande kilifaam yi kenn mosu koo dégg ci dara li yoon wi baaxoo rek la daan def mooy jàpp njàmburam topp ab kilifaam lu mu am jox kilifaam fu ko kilifaam jëme mu jëm fa daana wax ni kat mbaam dañ koy sëpp bu dee ñu jël morom ja moom diggante moo kilifaam loolu la ci doxale daana wax nit ku ma ku ma ëpp àddi yëg ma dàq laa joxe ba jeexal te kenn du ko ci fekk waaye dafa mel ni lu sëñ bi leble woon tey jii donga yi fay nañ ko ko muy muy tu tànk yii sëriñ bi wax na ni seen liggéey bii de dana ko seedeel Cheikh Moustapha Fall may bàyyam ndax liggéey bii nga xamee ni moom doon nañ ko kuule tey jii sëriñ bi ci boppam moo ko jox ndigal njabootu bappam mu dalee ko ci kër gi nga xamee ni sëriñ Maguette Niang mi toog mooy jëwriñu kër gi ànd koog ay doomi sëriñam mu wëlbatiku daane bi daat ay bataaxal mbooleen ñim séq ak sëñ Moustapha Fall ak mboolem ñim séq ak Cheikh Ibrahima kenn ku ci nekk bi yàlla dogalee sa jëf ñëwit defal nañ la ko ci ndax ko ba yàlla dul jaawale jëf yi ndax benn jëf di jaawaloo ak ja liggéey nag mooy maye dara sëñ Cheikh Fall daana wax ne yoon bu ñu ko dee wax kuy dox a tax ku doxul bokku ci waaye jantu tey ku ko xool xam ni sëñ bi lu mu liggéey woon tey jii dong yii taxaw nañ ci duñ ne dañ koy fay ndax mën nu ko ndax sëñ bi ki ko liggéey liggéeyloo dong koy fay muy seex Moustapha Fall ndax Cheikh Moustapha moo ko ne sëñ Cheikh mu ne ko Fall mu ne ko am na lu ma la bëggal loo xam ne bis boo ci jotee àdduna gépp daanu xam ne lii laa la bëggaloon mooy mbooloo mii mooy liggéey nga xam ne nit ñi tàmbali nañ ko ci jàmm ak ci salaam ba fi ñu toll nii kenn ku ci nekk ci pas-pas ak bëgg ak ngëm nga ci demee te ay xale dong ñoo cëpp ñoo ci joxe seen i wërsëg ñoo ci joxe seen doole te tey ba tey jii bu ñu waxoon dañuy fanaan ñu ànd koog ñoom waaye ndokk ba borom kër gi amee fay. kon sëriñ bi moo ngi leen di sant bu baax moo ngi leen di gërëm bu baax xolam seet na ci yéen guy yi ajjuma jii di ñëw nag bu soobee yàlla moom lañuy fas yéenee raaxaat ndax bëgg nañ ni balaa yegg balaa yàgg ñuy dugg ci weer koor gi soxna yi dinañ delluwaat ci seeni i kon loolee nga xam ne seeni njàmbaar la seeni fit la seeni i bëgg la waaye nag ab baay Fall de Cheikh Ibra Fall da ko wax Baye na Sall jébb ne ko Thierno mu ne ko Fall mu ne ko ndax xam nga lan mooy Baye Fall mu ne ko déedéet Fall mu ne ko Baye Fall kat ñett la si kartu yàlla sàmm say cër ak liggéey joxe waaye mbooleem li sëriñ bi bëggoon na mbooleem li sëriñ bi bëggoon tout tànk yi ñoo ko def ak seen jëwriñu maçon bi ngeen àndal bi yàlla dogalee nag ci kulaas bi njabootu sëriñ bi ñëpp ñëw nañu kenn ku ne ba ko déggee bàyyi nga say soxla ñëw waaye sëriñ bee ngi leen di ñaanal saa borom guddal seen fan te wéral leen te defal leen jàmm te ngeen xam ne kat yoon wi liñ fi maye amu fi seetaan ñeetaan ku def dara am dara ku deful dara doo am dara na ngeen gën a góorgóorluwaat na ngeen gën a feddiliwaat seen laxasaay bu baax te xam ne borom kër gii lépp lu mu am ci àdduna da koo liggéey taxul di ko ñaan kenn fépp foo xam na ne mës na faa taxaw liggéeyal yàlla ngërëmal yàllaa ko fay jógee mës ta werante kilifaam kon nag bu ko yàlla bu leen yàlla defalee taw féex seen at yi néew ngeen jamonoon teg moom liggéey bii ne ku leen ci fekk tey bi jant bi xëyee ba tey jii xam nañ ni ci yéene ak bëgg ak ngëm képp ci ngeen nekk waaye sëriñ bi nee na saa borom dana faj seen sa seen aajo ci sayir ak ci baatin ma ne li may wax du samay wax yu bopp waxi sëriñ bi la kenn ku ne xam na ni sëriñ bi juboo naa naag boromam moo ma ne wutuwuma Cheikh Ibra teg loxoom ci dënnam ne ma man la kon yéen ñi na ngeen xam ne de boo leen su jógee Cheikh Rafal mi ngeen doon liggéeyal sant ne leen gërëm na leen wasalaamaaleykum wa rahmatullah jaa ngeen jëf jaa ngeen jëfati ngeen tàllal seen loxo seen jilifal ñaanal leen mbokki jullit mbokki taalibe asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu soxna euh, Diagne Cissé Dialli Batul Maraxib sa pay produit magom se ma fall secrétaire général adalu Mame Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba daale Serigne Cheikh Jëmb Fall moo teew fii waa ci kër xalif général de Baye Fall xalif euh, euh, Serigne Cheikh Fall jëm borom daara ji di ko ñaam yàgg fi lool te ànd ak wér ci coulage bu am solo bi nga xam ne ñu ngi ko doon kule ci bâtiment soxna yi nga xam ne euh, ndeysaan euh, ñu ngi ko doon taxawee waa sëriñ bi euh, mu joxoon lañ ci ndigal ginnaaw bi ginnaaw bu waa alalu si maam Cheikh Ibrahima Fall dafay li nga xam moom mooy miir ak mbaar mi ak seen taxawaay bu rafet ak sëriñ Magay Ñang Bay Fall sëriñ Amadou Doumbia ak mboolem ñi nga xam ne sëriñ bi ñoom la bokkal Sidi Ibrahim Fall sunu waaja murid mag waaye soppe xarit yi wëlëre yi ak am di jaam ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen taxawaay bu rafet di leen ñaan yàgg lool ñëwaat bu baax ba tey rek ci liggéey bi euh, kenn ku ne euh, xam na ne liggéey bi des na euh, te koor gi li ki des bareetul kon nag na ñëpp rek am pas-pas ak yéene daal di waat ba tey seen addiya ci numéro orange ne wala numéro Wave yi lu ci mel ne 78 534 89 11 78 534 89 11 orange money la waaye Wave la ci turu Omar Seck wala ba tey ci 77 649 95 88. 77 649 95 88 moom tamit orange mën na la waaye wéef la ci turu euh, Diagne Cissé bu ko defee rek euh, dinañ ci mën a jot ndax mbaar mi eggagul wax dëgg yàlla euh, te liñ ci war lépp dafa bari macha allah. ak bâtiment soxna yi ndax euh, donte tamit waa kër sëriñ bi lañ jox ndigal li euh, waa daara ji tamit am nañ ci part de responsabilité bu mag a mag a mag ci li nga xam ne moom mooy liggéey bi ngir mën a dajale waa seen addiye ngir def ko ci li nga xam moom mooy bâtiment bi waaye di sant bu baax a baax mboolem waa daara ji Alal Cheikh Ibrahima Fall euh, murid bu mag bu jiite seen naw ma sec nooru daare ni général Mame Cheikh Ibrahima Fall njiital daahira bi daara ji di alalu Cheikh Ibrahima Fall murid bu mag ba ci taxawaayam bu rafet macha allah bëgg nañ ci lool ndaxte euh, bi nga xamante ni coulage bi jot na di tey jii ñu war a coulé euh, bâtiment soxna yi sëriñ bi euh, waa daara gi la jox ndigal ngir ñi mën a bépp bernde boo xamante ni murit yi dañ ko war a xéwloo moo xam lu ñuy lekk la moo xam lu ñuy naan la fii ci biir euh, kër gi ak li wër kër gi yëpp ak koñ bi euh, waa daara gi la ko sant si njiital si naa Omar Nour dari général kon nag macha allah ndok ba nga xam ne euh, suñu borom du jaawale jëf yi te ba nga xamante ni tamit jox nañu ndigal la bañ ko waxee waa daara gi ñëpp rek dañ ci ànd ak Pastef bu am solo yónnee seen ay addiya waaye defe ko ni nga xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee wax dëgg yàlla dara manqué wul nag lekk yi naan yi lépp wax dëgg yàlla ànd naag jàmm ak tawféex ak xéwal kon nag ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di ñaan rek ñoom ñëpp rek ñu daa di takkuwaat bu dëgër takkaat laxa say te fas yéene eh, waat li nga xam ne moom mooy addee ji jëm ci eh, liggéey bi nga xam ne moom la ñuy liggéey fii ci kër xalif général dee bay Fall borom daara gi daalalu Cheikh Ibrahima Fall eh, murid bu mag ba di ñaanal ñëpp rek euh, fan bu gudd wér gu yaram xew yu bari loon gërëmal borom Touba euh, ci dooley Jalibatul Maraaxib ñi ngi sant mboolem nag euh, ñoon ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi waaye maître maçon sëñ Bay maçon ak mboolem maçon yi nga xamante ni ñoom lañ àndal buñ ci limee seen Mara Diaye sëñ Pape Demba Thiam ak Baye Mbay maître mason da yóbbaale ñëpp waaye waa waañ bi tamit doon dala tey xewal xewal yi Euh, togguñu ko waaye ñoom tamit wax dëgg yàlla bu ñu ñëwee seen loxo lañ ko teg ngi daal di koy séddale seen loxo la ko teg ngi séddale ko waaye séddale bu am euh, jaar yoon nag kon ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal mbooleem fu jëlu nekk nag ci réew wala ci biir réew te bokk ci daal di Allou Cheikh Ibrahima Fall murid bu rek leen di jaajëfal waaye membre yi nekk ñoom ñëpp rek wax dëgg yàlla sant ak cant ak ngërëm euh, ñeel na leen ñu ngi leen di ñaan mu yàgg lool te sax ci doole yi Jalibatul Marahib Euh, kon nag ñu euh, leen di joxaat dig daje aju euh, dig daje ajuma bii di ñëw incha allahu rabbi ajuma bii di ñëw ci lañ fas yéene teewaat fii ci kër gi ngir wéyal li nga xam ne moom mooy liggéey bi ci biir kër Serigne Cheikh Fall jëm ko ñu ngi ciy woo ñëpp di ko soñ ñëpp rek ñu daal di yónnee bu baax a baax rek jëmale ko ci liggéey bi di jaajëfal bu baax nag waa Assalaamy TV ñoom ñi nga xam ne seen site internet bu am solo. bi nga xam ne jamono ju ne saa su ne ñu ngi topp liggéeyu euh, maam Cheikh a Fall euh, murid bu mag ba ñoom tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di leen ñaanal euh, sit bi jëm ca kan ca kaw ca kanam waaye di ñaan ñëpp rek ñu abonné ci site Assalaamy TV ndax am na solo lool ndax lépp loo xamante ni rek. parce que bu la umpoon ci réew mi wala ci biir wala bi sëriñ bi boo ko dee topp seen ay jotaay ah, dañ ci xam lu bëree bëree bëree bëri kon ñu ngi jaajëfal mboolem bay faal yi nga xam ne teew nañ fi ay faal yi fu ñu mën a nekk ci réew ak ci biti réew ah, ñoom ñëpp rek ñu ngi a baax di leen ziar bi ñu ñëw incha allahu rabbi ngeen bëggee ay xibaar yu wér te wóor visité leen suñu site internet asalaami point net wala ngeen visité suñu chaîne YouTube Assalaamy TV mën ngeen ci abonné sax su ngeen bësee ci bouton bu xonq bii bu leen fàttewaale bësaale cloche bi ngir bépp xibaar boo xam ne dugal nañ ko ngeen mën di ko am ci saase moo xam ay reportage la ay émission ay documentaire yu am solo lépp rek ngir jox leen ay xibaar yu wér te wóor ñoo ngi ci réseaux sociaux yëpp moo xam Facebook la Instagram ba ci Twitter fu ngeen ci dem rek daa ngeen fa fekk xibaar yi nga xam ne moom lañ leen di jox muy bàyyeekoo ci Assalaamy ak Assalaamy TV jox leen ay xibaar yu wér te wóor rek mooy suñu yitte.